jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne gis ngeen tey bu ngeen gisee région de Dakar la ñu toogal tey ñi nga xamante ne ñoo nekk champion chef de l'état vingt-deuxième édition fële ca Diourbel xale bi téye micro bi nag xàmmee ngeen ko nekk xale boo xamante ne mooy Babou Kaling mu nekk xale boo xamante ne vraiment wane na boppam ci soixante six kilo bi vraiment nekk xale boo xamante ni yaakaar naa ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk fi ñu jugee loolu yëpp na dañ leen di bàyyi ñu nuyu mbokk internet yi nuyu ñi leen di seetaan nuyu waa dëkk ba su ko defee ñëweel waxtaan bi baa maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. waa ñu ngi delloo siyaar bu wér. Mhm. di naan auzu billahi mina sheytaan rajim di santaat yàlla bu baax a baax a baax. yëkkati micro bi. bi ñu kàttanalee. Mhm. waa ñu dem bëre ji drapeau chef de l' yàlla may ñu si ndam. ñëw hmm. toogaat fii nii. di profité ci occasion bi rek di sant waa Palmarin gépp hmm. waaw waa Palmarin ñu ngi leen di sant bu baax a baax dañoo taxaw. Palmarin waaw waa Palmarin. Hmm. dañoo taxaw bu baax a baax ñu leen sant bu baax amuñu seen fay. gis nañ seen taxawaay. te ñu ngi wax naa ñu gën a jàpp rek teew bàyyi. incha allahu rabbi yàlla mën na def ndam. yàlla kay def na ndam ba. waaw waaw ay yeneen i ndam rek <laughs> ay yeneen ndam waaw. ah noonu laa ko mën a waxee en fait. ndeysaan waaw di gërëm ñëpp daal. di hmm. gërëm sama waa équipe tamit. kii nii sama lakkal bi Mbaye Diop maa ngi koy gërëm. ñoom ñoom Serigne. ñoom luy coor numéro deux. Tony Senior. Hmm. ak encadreur yëpp ñu ngi leen di gërëm. Hmm. leen sant amuñu seen fay. waaw sélection équipe nationale bi nu mu demee nan nan nga def ba gars yi ràññee la ba sélectionné la. bon man wax dëgg fa neex yàlla man daan naa bëre ci àll bi mbapat hmm. waaw mais ren ji nii ñëw na cinq millions yi passé hmm. ñëw naa fi bëre naa fa ba quart de finale dafa mel ni raw ga duy hmm. waa maag benn waay bu ñu naan asantine waa ji sax daan naa ko ba arbitre jox ma victoire ma dem demi-finale ma jékki-jékki gis ko mu dem ci taawul ba direct la ba gars yi woote waat ne ñu bëriwaat combat bi kaa de final. mu mhm. mujjee ma daan ma ñàkk. Mhm. peut-être Malick Ngom foofu la ma ràññee. Mhm. moom moo ma contacté. ne dañoo soxla cent six kilos. léegi bi ma contacté tamit fekkoon na ma man euh, ma occupé tuuti. mais ma ne ko may ma tuuti temps ma xool. léegi bi ma xoolee affaire yi moom mu insisté waat boole ma benn waay Alex Ka. kooku tamit dañ doon déggante téléphone. léegi kooku tamit moom ma gën a motivé ne ma demal. parce que lii c'est une chance en fait à saisir. Mm-hmm. comprendre mm-hmm. léegi ci laa ko waat ne amul benn problème. Mm-hmm. léegi di kut kooku dinaa ñëw Dakar ñu jéem a lijjanti loolu noonu laa def paas ñëw. waaw da nga jàppoon loo doon def ba jàpp. non daa am ci lu ma nekkoon rek. <laughs> ci loolu dinañ ci ñëw. <laughs> léegi ñu sélectionné la équipe nationale. bi ngeen fa demee euh, ñaata 66 kilos ñoo fa nekkoon. bon man la woon ak benn remplaçant. yow ak benn remplaçant. waaw Hmm. Hmm. léegi bi nga demee euh, après équipe bi. Hmm. bi nga demee gis gars yi nan nga def ak équipe bi lan moo la ci gën a marqué. avant ngeen di dem. bon man équipe bi Malick bi ma wooyee xam nga euh, drapeau chef de l'état du maanaam da ngay ñëw rek da ngay dem rek pour participer. en fait bu ñu la sélectionné man boog personnellement. man ni may xool man ni may analyser affaire yi. Hmm. man boo ma sélectionné dinaa xool ndax équipe bi. Hmm. maanaam man na jël drapeau chef de l' état. Hmm. parce que man damay suivre mbëri. moom bi ma waxee ne Serigne Ndiaye la am plus de cent kilos. cent kilos mu ne ma luy coor la am. tek ci tonus nga quatre vingt six kilos. tegaat ci Mbaye Diop. Mm-hmm. ma ne équipe boobu wax dëgg fa ne yàlla macha allah. bëgg nga cee bokk waaw bëgg naa cee bokk. parce que xam naa ne buñ booloo moom mën nañ am ndam. Mm-hmm. waaw léegi jaajëf yow damay ñëwaat ci yow. mais mm-hmm. joxal ma mbay Diop moom it ma nuyu ko mbay maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. waaw maa lay delloo siyaar bu bëri. yow di yéen ñaar yéen a bokk fi ngeen juge waa ñëw bokk fi ñu jugee. di Palmarin. waaw may lancer appel gars yi. maire yi jàpp nañ ci affaire yi jàpp nañ ci bu baax. ak paay yi. Hmm. surtout ñoom alise ñoom mam ami hmm. dañ see jàpp bu baax a baax. Hmm. waa jon waar tamit dañ see jàpp tamit bu baax waa Jonwaar. am na solo yow tamit. waa Betenti non foog ma. Betenti waaw waa Betenti. <laughs> waaw ñoom Fodé gars yi waa Géeraw. Géeraw gi juddoo. ñoom tamit dañoo jàpp ci affaire yi. léegi yow tamit nan nga def bañ sélectionné la pour nga dem euh, drapeau chef de l' état. non man moom wax dëgg pour dra pour pour ñëw dra drapeau chef pour ñu sélectionné ma du lu bees ci man. Hmm. parce que daaw soxla woon nañ ma. Hmm. parewul woon. Hmm. te xamoon naa ren incha allah xamoon naa dinaa ci ñëw. <laughs> Mhm. daaw la moo taxoon parewu. non parewu ma woon mystiquement ak ak lu bëri tamit ak lu bëri. parce que drapeau chef de l'État balaa nga ci ñëw la ngay pare. da mhm. mhm. ngay pare ah. ci koor gi nan nga doon waajee war dem compétition boo xamante ne ñu bari dañuy xaar mbay Diop <laughs> bokkoon nga ci favori yi nga xamante ne yaakaaroon nañ leen ci Dakar. waaw dëgg loolu moom bokkoon nañ ci favori moo tax ñu gën koo préparer di woor di wàññi poids daanaka onze kilo laa wàññi. yow mi onze kilos laa wàññi. onze mhm. doon wàññee. man jour bi ñu jour bi ma woowee pour euh, sélectionner ñu. dañ ma woo rek ma commencé wàññi parce que xam naa ne ma woowee man dinaa dem. Mhm. dañ ma woo rek ma commencé wàññi avant maa ñëw regroupement ay deux kilos ma dese maa ngi koy wax kaling sax mais. Mhm. gëmul woon loolu di ma kaañoo foofu. Mhm. mais biñ demee moo gën a sonn nag. moo wàññi na ñaata. non instant boobu moom mu ngi waroon a wàññi xaw ma 4 kilos mais <laughs> saay bu wàññee buñ tëddee ba suba si rek. bu <laughs> yokkaat poids yi yéegaat. <laughs> moom day lekk day lekk. non moom du lekk mais daa amul gënees. groupe bi ci groupe bi nan ngeen doon nekkee parce que yéen ñëpp ay champion ngeen ay mbër ngeen te da ngeen di ci lutte traditionnelle bi. non nan ngeen nekkee woon esprit de group bi nu mu demee woon. man bi li ma ci gën a neex. Mm-hmm. waaye Tony Junior parce que hmm. Tony dañoo bëre dañoo bëre final. Hmm. deful ay trois semaine ñu convoqué ñu. Hmm. jël ñu après ñu dem regroupement mais biñ demee regroupement. mais si laa xam ne saa waay xol bi dara nekku ci billaahi. ay sportif ngeen. saa it comme néeg bi ni mu nekkee. daa ñu tëdd côté bi tëdd côté bële. mais moom sama wet la ñëw tëdd. billaahi affaire yi neex ñun ñëpp ñu nekk benn. ñoom seen kumpa. ñun ñëpp daal nekk benn maas waaw suñu capitaine tamit xam nga affaire yi moom wax dëgg mbooloo ni ñu booleew ak mm. xol yi ni ñu nekkee benn. Mm-hmm. moo tax yàlla may ñu lii. yàlla may leen dam yow bokk nga ci ñi nga xamante ne bi baabu kaling bëree yow yaa ci topp. Mm-hmm. bi ngay bëree ji moment boobu kaling am ndam nga war cee topp. Mm-hmm. ci final bi euh, nan nga yaakaare woon ni gëmoon nga ni ki ngay bëree dina daan wala xamoon nga ko. man sumay may bëree su ma su ma waree daanu sax su may daanu sax damay yuuxu parce que duma gëm ne mën naa daanu man gëm-gëm boobu laa am. ah wóolu sa bopp. comme ni ko yëkki Yaxya Diop doon waxee làmb moom gëmu ci daan rek la gëm. Mm-hmm. man man làmb gëmu ci daanu daanu bu ñëwee daf may bett. Mm-hmm. joxal ma baabu. baabu yow moom yaa ubbi ndam ne drapeau chef de l'état bi yaa ubbi ndam bi adversaire bi dugal recours. mais mm. mi ngay bëri moom xam nga ko. booy boobu macha allah dafa baax 66. non kilo bu bu bu Fatick bi. non booy bi champion la. xam nga ko seetaan naa ko seetaan naa hmm. dama kaa seetaan lu bëri parce que moom à chaque fois man sama catégorie. Hmm. ku ci amoon komba rek. damay bàyyi lépp lu ma doon def ñëw taxaw di lay seetaan. Hmm. moo tax booy bi ñuy bëree moom tamit bettu ma. te xam naa ne tôt ou tard moom dina dugg si. moo tax à chaque fois dama ko doon xaar rek mu yegg si. Mhm. mu yegg si nga def nan mu yegg si ah en tout cas man man en tout cas man damay bëre lépp en général. Mm-hmm. mais moom premier jël bi ma jël li tax man maanaam noo juuma ko mu daanu moom daf moom technicien la daf ma jël daw ak man. Mm-hmm. léegi bi may samp loxo pour nooju ko bu teey fii bloqué. sa bopp bi bloqué amatuma appui. Mm-hmm. bi bloqué noonu ak ñuy àgg ci saaku yi léegi ma teg fa ci saaku yi arbitre wootewaat. bi tamit. dañoo ñëw lewtoo ma bàyyi ko mu dugg si. Mhm. bi mu dugg see encore daa dugg rek pivoté man tamit bi mu duggee man ma jël sama loxo bi tere ko nii bloqué ko. Mhm. léegi moom mu yaakaar ne fa laay continuer na dugal naa tourné ko. mu jox ma wet après ma àggali action a daan ko a daan ko. bi nga ko daane bi muy bind recours njortoo woon ni recours bi dina ci am dara. non non man bi muy bind recours man maa ngi yaakaaroon ne sax moom ci maanaam suñ deuxième action bi lay bindal recours. parce que am na hmm. benn action boo xamante ne dama kaa dugal naa léegi sandi moom muy daw ma topp ko. Hmm. ko topp micro bi. ma ko toppee ci kawam noonu. Hmm. moom mu génn saako yi. drapeau bi lañ soxla à chaque fois nag. mu ñuy motiver man nag seriñ wax dëgg fa neex yàlla man esprit de gaynde boobu ma gis ci moom. moo tax ma ne te jii nii combat bi moom quelque que soit la situation duñ ko ñàkk. ndeysaan duñ ko ñàkk moo tax boobu man defuma action. moo tax ma bàyyi ko moom mu ñëw bëre. moom mu bëre man ma bëre ci kawam daan ko. nga am ndam ci kawam. waaw macha allah. Euh, Babou. Mbaye Diop <laughs> Mbaye topp ci màggo màggo waa ji rek. Mbaye actuellement yow. daa yow ngay bëre. Mhm. sa deuxième combat. waaw adversaire bi gis nga ko moom it bokk na ci adversaire yi nga xamante ne wane na boppam ci drapeau chef de l'état bi. ni mhm. ko daaneel daa mel ni Pierre Tapha Gueye yow la daw yanu de. Mhm. waaw moment boobu lan nga yëg moment boobu. parce que moment boobu man avant avant moment boobu sax. Mhm. biñ te biñ toogee ci biir néeg bi. dama ñëw di sitaanaat vidéo bi. ma xam ne man suñu premier combat dama juum. dem naa dem boo xam ne baaxul. jaarul yoon. Hmm. ba booy ma àndaloon ñëpp da doon dañ doon jooy. après si laa jug gaa yi teg reer bi ma war a reer. Hmm. ma toog ci bool bi ni rek jug boobu mënuma lekk parce que booy ñu ngi doon jooy. bi la njëkkee daan bi mu ma njëkkee daan. ah na foofu. ma ne man du ma reer. Hmm. après ñu xëy suba si ndekki wi ñu teg ko man tamit ma siisuwaat parce que boobu yàkkamti naa heure bi jot. mais bi affaire yi jotee ba ñu takk ba ñëw biñ biñ duggee ma damane ne bi ma defoon demb du ma ko def tey. mais li ma jaaxal mooy bi ngay dugg ci digg géew maa ngi lay gis chaque fois yaa ngi yëngal sa bopp naan lu góor du tiit góor du ragal góor moment boobu lan la. wax da nga tiitoon wala dafa wax jooju daa am fu ma jugee. Mm-hmm. que li ma naan góor du ragal góor. daa am ñu woo benn grand ne Baye dafa ragal waa mu mm-hmm. bëreeg waa ji daf ko ragal. loolu moo tax ma andi góor du ragal góor. Hmm. mu ñëw léegi nga ñëw bëreeg moom. Ah. daan ko. mais dama dama ko gëmoon parce que waxoon naa ko capitaine. Hmm. nee ko bul tiit benn côté. su ma ñëwee pour dëggal sama bopp pour bëre rek ba yàq sama combat. Hmm. gëm naa ne kii du ma daan. macha allah am na solo léegi nag drapeau bi jël ngeen drapeau chef de l'état ah. vraiment ay champion ngeen. làmb ñu ngi leen rawatina équipe nationale bu Sénégal. nan ngeen fas waajal ci ci compétition yi nga xamante ne équipe nationale bi ñu ngi ci yaakaar wala ñu ngi leen di séentu. gars yi ngeen ngeen xamaale ne ñu ngi ci gàlle bi mais capitaine bi mooy ruube loolu Serigne Ndiaye. bu fekkee làmb équipe nationale bi moom. Hmm. ñun làmb bu ñu dañ koy def comme lamb joo xam ne ñun ñoo jël suñu propre initiative. pour hmm. dem bëri ji. Hmm. du du diis ñun daal. làmb du diis ñun parce que. dañoo tarbiwu làmb ni ma ko mën a waxee. Mm-hmm. biñ nekkee tout tànk la ñuy bëre ba ba léegi nii. Mm-hmm. kon nag du diis ñun. macha allah maa lay félicité bu baax di la bàyyi nga tàgg waa Palmarin. waaw comme li nga doon dëkk yeeg yëpp. Ah, waaw maay gërëm waa Palmarin waa Betenti. Mm-hmm. waa Ñoojoor. waa Géeraw. ak sama ñaari sikam mbay. ak sama benn sikam mbay bi nekk fële. ci ci gaal yi. Hmm. gaa yëpp daal maa leen di siyaar. Hmm. waaw di seen doom yi bëre. jàppale leen ko bu baax a baax billaahi. Hmm. te gaa yi ñu war a wutal combat. yow mi waaw ñu war a wutal ci combat yi. combat ma ci war a wutal kan ngay bëreel. Ah. <laughs> na ma gaa yi jox ci combat yi rek. yéen ñan nga mën a bëreel arène. sa catégorie ñi ñi a bëreel bëri nañ. arène du bëre simple de fii ay dóor moo fa de. arène du bëre simple foofu ay dóor a li tax ma jógee Guéréo dem Palmarin. nañ mhm. nañ yem foofu. bu <laughs> ma am combat ay ay bay Diop joxal baabu baabu. maa lay jaajëfal bu baax yow it macha allah vraiment <laughs> l'intellectuel yow yow yow baabu war nga wax actuellement sa lan lan ngay def. parce que sànq am na lu ñu jot waxtaan man a mais waxtaan ci gémmiñu borom la dàqee lan ngay def yow. <laughs> ah waaw actuellement moom micro bi. actuellement étudiant laa la étudiant laa daal noonu laa ko mën a tuddee. Mm-hmm. parce que maa ngi maa ngi def sama formation actuellement. Mm-hmm. en comptabilité gestion. Mm-hmm. am naa samay diplôme am naa ay diplôme d'état tamit. actuellement maa ngi master 1. waaw. foo man maa ngi jàngee benn école de formation bu tudd IFA côté VDN la nekk. IFA. Mhm. xam naa fa. xam nga ko. Hmm. nooy dundee waa école ba foofu sa gaa yeeg yooyu tey nga doon mbër ngemb sottee ko saafara suba nga bëgg a doon benn playboy xoju sol laal costume cravate. ah non dundin boobu yeemewul. yeemewul de comme ni ma doon dundee avant may ñëw foofu rek. Hmm. waaw on en famille là ndeysaan maa lay jaajëfal bu baax am na solo. waaw xanaa di profité waat rek o fogole séeréer mais simna fop to gidma fop i hmm. eh, to leya nuun nu ndamta ɓiya ke rek i eh, parce que neke te fina ref champion sénégal yooɓee to giyano i mbasa région de Fatick ngar ñoxoranida Dakar kene a refa ka andoona yee tamit a waaɗa ñak je mais nak le ndam fe ndam sénégal fop po ndam juwala yo eh, e i nu ɓaato ndam rek e inengidma fof alise i becciram valdo inengidma nun e, i mbase leng a sika mbayakemi treva an weyoni ɗumama degol dawda pousére mbasave garerna me gidma fof wasimo leng meke bo mbinna ndundur juguin tokosaluin fop me gidma den gidma ye es fe andona ye mama care meke na care sur mer me gidmama paxa paxa to leya nu ñana no ɓiy nun rek to inchallah nu ndamtanga in o njiriña waxa feeñ merci beaucoup. jërëjëf Mbaye Mbaye tamit day day woo. waaw laakal ayca. waaw damay gërëm sama gaay yi. waaw sama gaay yi may liggéeyal. waaw li may liggéeyal sama patron Assane Ka. ndeysaan ñoom Ñambe. Hmm. ñoom Malick ñoom. kayab daal waa Technosite ñëpp. waa Technosite looy liggéey man mu dañuy monter ascenseur. ah da ngay monter ascenseur uh-huh. macha allah. waaw maa ngi gërëm gaay yëpp daal waa Technosite ñëpp ñëpp ñëpp. Hmm, hmm. Mm-hmm. jaajëf am na solo. ñu leen di jaajëfal bu baax di leen féliciter Aïcha kaay.